assalamualaikum mbokk téléspectateur Kifne TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax tay dañ doxantu won fi ci Touba usine glace kër maire Oumou kan maire Oumy Konté pour waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci waan bi xol préparatif yi nañ leen dundee màggal geeg yooyu noonu. digal sabaab nay tooñ saale ko liggéey ba jot na waay saale ko alxames la raay bi teer saale ko Aliou ba xam fii ci waañ bi nan lañu dundee màggal geeg yooyu noonu Aliou ñu ngi lay déglu ba xam. waaw di leen siyaar sëñ Ahmed da def waay waaw man waañ bi de ñu ngi nii di ko gérer depuis barki dem ba tey ñu ngi fi waañ bi barki démb ba si topp ak tey ñu fas yéene daal daal di gérer daal màggal gi daal comme ni ko suñu bëggee parce màggal gi léegi nekkatul foofu. waaw magal bi nekkutul ko nekkul saayir magal gi jaamu yàlla la parce que bee ko woote moo ne bis bii nii bis bii nii dama bëgg nga seetal ma ko yàlla bu leen xeeb ginaar banen do lan ko ray bu len naw gillem tamit banen ne tamit nag doo leen ko ray te tamit bis bi tamit su ñewé tamit ngeen ko arko an tagal ko ci xasida gi tagal ko ci berne ñu ko mbacke ak lan mun berne ñu ko mbacke ak lan mun berne kon berne nak lu jaro fonk la ñun nak mo machallah ñoo ñoo géré waañ bi waañ bi na machallah dara manké wu waaw dara manké wu ndawal léegi fii ginaar léegi fi dara manké wu gaay nga daw safar maro ñu ci daw parce que nak euh, bis bi nak mom machallah bisu promotion la loo si amul moom ren moom dootoo ko amati moo tax bis bii nii su ñëwee képp kuy murit dootoo gisati comprendre nga dootoo gis dootoo dégg daw rek ngay gis bis bi pour lépp rek nu mu rafetee waaw. waaw kon Aliou ñu ngi lay sant di la gërëm di leen ñaanal màggalu jàmm. ci màggal geeg waañ beeg yooyu noonu nan ngeen ko dundee. waaw ñu koy dundee comme niñ ko daan dundee rek ni ko murit bu nekk di dundee di am xéewal am wéru mën a ñëw teewe ci màggal gi am wér am xéewal ñëw teewe màggal bi kon dañuy wax ne xéewal bu ñu suñu boroom xéewalee la ñu ñëw sant la Serigne Touba bisam bii mbégte la si ñun fierté la damay wax ne amuñu ñun si 365 jours yi lu dul benn jour muy jour màggal gi kon mooy suñu itte moom la ñuy dox kon ñu ngi koy dundee comme ñu ko ñëpp di dundee rek ni ko Serigne bi santaane togg ay bernde santale Serigne bi yàlla ndax loolu la ci santaane gis nga ñëpp a ngi ci waaru yi ndawal geeg yëpp a ngi fi ñu ngi si añ yi instant bii nii. kon fas yéene dalal gan yi rek fexe màggal gi kenn du manqué dara kenn du xiif kenn du mar ba ñibbiwaat si jaamaat xam nga kon jërëjëf soxna nday rama ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal màggalu jàmm jëlal mbokk téléspectateur TV waa ñu ngi Père du Bara waaw ñu waxtaan ak am na benn waay bu taxaw ni ñu laaj ko moom nan la dundee màggal geeg ak waañ beeg yooyu ak préparatif bi yooyu noonu waaw góor ñu lay dégg màggal gi préparatif yooyu. Ah, dolli sant yàlla bu baax dolli sant yàlla bu baax Serigne Touba moo ñu jaral lépp ndax Serigne Touba. comme que ñëw nañ si kër gi gars yi dalal ñu dalal yu baax ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi toppatoo màggee wuñ dara daal. dara daal manqué wu fi daal. taw féex na ko. taw lépp taw féex. gars yi ngi ci kaw di dal jàmm di bëggee nice. bernde yi lépp mu ngi lépp mu ngi dal. mu ngi jox lépp boisson caagiri lépp manqué wuñ dara. barki maam sa rafal mais waa kër gi dañoo baax. dañoo baax trop ñun moom ay géwél lañ boo ñu defee loolu baax dañ koy wax. loolu la yàlla dogal nag. màggal gi neex na trop. barke seigne thiaw yalla nañ koy fekk ay ati at kep kuy bàyyi fall yalla na ko fekk ay ati at barku seigne thiaw ma la wax ni ok kon ñu ngi leen di gërëm di leen jaar di leen ñaanal magalu jamm eh, jërëjëf Thank you. ñu ngi fii nii di ak beneen soxna ñu koy wax eh, Aïda Mbaye waaw di ko laaj nan la dundee màggal beeg waañ beeg yooyu noonu ak gan yeeg nañ leen leen ni bernde leeg yooyu ñu ngi la ciy déglu Aïda waaw asalaamaaleykum yéen mbokk taalibe ñoo ngi leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax waa màggal gi nag moom ñu dañoo amul ku dul Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim moo tax su màggal gi ñëwee lépp loo xamante ne nii rek muy teeru gar ñi teral leen bernde leen ci la ñuy nekk dañuy nekk ci waaj bi ànd ak Baay Faal yi di berndeel gane Sëriñ Tuubaa yi di leen teeru ndax Sëriñ Tuubaa dañoo amul loo xamante ne nii lu ko sub la wala lu ko gën a màgg la moo tax bu bisam bi ñëwee rek dañuy takku taxaw liggéeyal ko ngir bëgg ngërëmal sëriñ Touba Seexul Xadim moo tax nag boo diir léegi rek ñu ngi takku taxawal rek di berneel gan ñi rek bugguñu dara sanguwuñu soluwuñu bugguñu dara sëriñ bi rek moo ñu ko jaral ñu ngi sant bu baax nag di lu liggéey bi di sant Mouhamed bu baax den sant waa télé bi yéen ñëpp kontaan nañu kon jërëjëf ñu ngi leen sant di leen gërëm fii suñ benn jigéen la soxna bu baax la ñu koy wax ay Aïda Mbaye kon jërëjëf di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam. macha allah beli ñu bah ba léegi si Touba usine glace nekkaat ci banen wañ bëgg laaj soxna yi nan lañ dundé wañ bék magal gék bernde ak yooyu kon ñu ngi la ciy déglu ci wañ bék. waaw ñoo ngi sant Seigne Touba di gërëm Modou Diop Moy sama jëkkeur mak moon indi fi Touba li def Touba ni on la def Dakar ndax safar gi safar na safar bu neex ñu ñëwaat fii ci Touba ray gileem rey xar ginaar yi ba tey jii dara manqué wul lépp sëñ Touba rek sëñ Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek kon ñu ngi koy ñaanal li mu bëgg ci yoonu sëñ bi yal na ko sunu borom defal sëñ Abdou Karim a ngi bëkki démb la yóbbu ay nag mag lépp te wanewu ko jëfewu ko boo ko waxul leneen du ko wax sëñ Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek waaw ñoo ngi sant sëñ Touba lépp bépp ku fi ñëw Touba li nga ñaan yàlla na ko suñu borom defal li nga ci sonn yàlla na ko suñu borom defal moom tamit li mu sonn ci yoon sëñ Touba yàlla na ko suñu borom defal ñun nag liggéey rek moo war ay taalibe ay ndongo rek la ñu waaw ñoo ngi sant ñëpp sëñ bi dellu ñu ñaan képp ku fi am feebar yàlla yamale ko fi nekk ci yi yàlla génne leen nekk barsàq yàlla fital àjjana si daw si ñu ngi sant sëñ Touba baax sëñ Touba ca kaw ca kanam rek moom lan yaakaar kon jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam waaw mbokk yi comme ni ngeen ko gisee woon Kifne TV la woon moom moo jaaroon fii ci usine glace am ay kër ñu ngi jor jaar xool waañ bi xool gaay nan lañ dundee màggal gi ñu gis ne taw féexe na trop ñoom tamit ñu eh, ngi toppatoo gan yi nelawuñu defuñu dara wàcc nañ seeni lal di toppatoo gan yeeg di leen berndal kon ñu ngi ñaanal ñëpp màggalu jàmm lazi Masque, ça va asalaamaaleykum waa Sofre asalaamaaleykum yéen ñi xam na ne yéen a déglu seen télévision Kifne TV tey jii nag ñoo ngi fii si Touba ñëw fii nga xam ne mooy jumaa ji rek ñëw siyaas ñi nga xam ne ne mooy euh, mbokki taalibe yi ñëw diisoog ñoom xool aka nan la ñuy euh, dundee li nga xam ne ne mooy euh, màggal Touba bi nga xam ne ne li nga xam mooy namalu góor nga xam ne ne lépp lu Serigne Touba dajoon rek si mbayoo ma tey la ko yàlla fayale rek ay ca dañuy daagu rek dem suñu mbokk taalibe yi di xool ak nan la ñuy dundee li nga xam ne ne mooy màggal gi

waaw lu jamono métti métti na ngeen ma ko fonkal moo tax ñu ñu dundee ko nii rek lu jamono métti métti ñu fonk daal di ñëw wax ji daal di ñëw. ñu bëri yaakaaroon na ne eh, màggal gi du am waaye ba sëñ Muntaxa joxee li muy ndigal gi rek gars yi ñëpp dañ see bég léegi nag ngay eh, waxee sa mbokk taalibe yi rek ak mesure yi nga xam ne mooy mesure barrière yi ndax gars yi nee na corona bi feebar bi yooyu ak nag ngay gisee ak taalibe yi ndigal googu ñu jëfe waaw waaw ndigal gi si sëñ Muntaxa ba mu takkee masque rek lañ lañ jàpp ne lépp ñun lañ xam ne lii mooy ndigal li mbir am naak amul yëpp amul solo li am solo mooy jëfeel ndigal rek waaw kuy nax boppam lay nax waaye yow mi nga xam ne yëg nga ne lii am na ci jamono jàppale na loolu muy dëgg rek boo ko jàppee muy dëgg rek nga respecté ko waaw moom moom loolu rek moo ci amoon solo ñu respecté ko waaw vraiment taalibe yi jàmbaar lañ parce que boobu ba koo daja rek mi ngi maskam waaw raxasu beeg yëpp ba ci jumaa ji dañ lay jox zel lépp ngay raxasu lepp jàppandi na fi wax dëgg yàlla eh, am na serigne Touba tegal am na kii li diine l'islam diine am amati na ndam waaw loolu mom lu wér la waaw dalal yi laaxu laax bila wa taqurun umuri taqabala waaw serigne Touba dana malaka ni dunya wa ukhra yalla denk na ma àdduna ak alaxira dama jeex ci rasulullah bam jeex tak rasulullah dal wëlbatu bolam ak yalla yalla may ma li may may kon ndam neena sama ndam ma nga tambali won fofu ci dootul jeex bu mukk loolu xamone nako ko waaw ma nga li tax nak mu ne der bu ñuul tamit ñuy gor fonk suñu bop gëm suñu bop te xamne arab yóbbulu doomu aadama dara wala xadd karam naa bani aadama yàlla xaamewul arab bi xaamewul nit ku fonk sa bopp gëm sa bopp Sëñ ba yàlla may ndam li tey te yaakaar naa gis ngeen ko bi moom rek ko am tey jamono ji métti ji dajale mbooloo mu moom rek moo ko desal jërëjëf Samy ñoo ngi lay jaajëfal si sa teewaay. salaamaaleykum mbokk taal bi ñoo ngi lay ziare bi wér a wér a wér waa Kifne TV bi ñoo fi ñëwoon rek di xool ak nan ngeen di dundee li nga xam ne nag mooy màggal gi. waaw màggal gi ñëpp amul ñu ko du dundee ñu dul sant rek amul lu sëñ Touba naan lil Moustapha nawaytu maayu jëddatu wa sunnatu xaraaw yi ni Ahmadou tey dafa leer naañu dëgg dëgg la dañu nekk si contexte bu particulier mais empêche ñëw nañ màggal si sëñ Touba parce que bu muy dem si di di xare pour sauver l'humanité lu ne daj na ko lépp luñ def pour màggal si dañ ko ko war a daajoo yaa ngi dégg il faut rendre à César ce qui appartient à César yaa ngi dégg kon ñun sëñ Touba rek lañ am sëñ Touba rek lañ am moom lañ màggal gi daal amul dara du sant daal sant rek sant bu wër a wër. mën nañ ne ndam amati na waat ndax gars yi yëpp ñu bëri ñoo ngi doon foog na na màggal du am waaye ba sëñ Mountakha joxe wee ndigal rek moo xam na ne sax gars moo ndigal gi bettu leen waaye ba gars yi ba mu ko joxee ndigal gars yi dañoo gën a bëggaat di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu tëwee ndax eh, amati nañ ndam. Eh, ndam kay dafa yàgg di am parce que man euh, suis asthmatique mais musuma xalaat ni damay bay euh, musuma jixi jaaxa ne damay ñëw Touba damay jàpp ne chaque jour damay ñëw Touba parce que comme lu ma lay wax noonu rek loolu mooy ñëwaat sëñ Touba lépp la enduré pour ñun kon nañ rendre César ce qui appartient à César sëñ Touba daal sant yàlla daal màggal gi gën na neex alhamdulilah te ñi ñëw dafa jot nag ñu sant sëñ Touba ñu woone ko euh, ne moom amul morom. amul morom seigne Touba kenn la li wax ne jamaxtali malam yëkkul wala yëkkul abadan bi mulki ni chaque jour dafa leer tay daf ko gëna wone seigne Touba kenn la ñi ngi leen di gëreem bu baax a baax. di la jaajëfal si sa disponibilité bi. jërëjëf ñaan na yàlla ñu fekk ay at i at i jeuf i jeuf jërëjëf jeuf jërëjëf jeuf rek sama benn mbokk taaliba salaamaaleykum soxna si aleykum salaam soxna si ziar nañ la bu wër da nga ñëwoon ci màggal gi waaw waaw c'est la première fois ñu ñëw Touba nag waaw mais macha allah essence moom neex na trop sax ah, ay ca ngeen ñëwoon rek ak nag ngeen di dundee li nga xam ne mooy màggal gi waaw màggal gi sant yàlla rek sant yàlla santaat yàlla bu baax a baax sant nga xam ne moo waral màggal gi macha allah moom ni koo xamante ni jàmbaare dina jëla woon koo xamante ni nit ku yàlla baaxal muy Cheikh Khadim yaakaari jàmm nga xam ne moo demoon maa yomb ba jaare gi gamoom kenn du moom mm. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax sant suñu wér a wér maanaam gi mu ëmb ñëpp ñu ñëw fekk fi képp koo xam ne nag jullit nga tiijaan ak laayeen murit yi bàyyiwuñu kenn képp ku ñëw rek di ko màggal li nga xam ne mooy bësam gii nee naa la yoonu yoon bu dis bu ne boo gisee am na ab ndam waa tey jii nga ñëwoon fi rek ziyaat ngay ab laayeen rek nga am lu ci noon ci wax rek waaw lépp moom daanaka benn lislam benn gum la kenn mënu koo dagg da yaakaar naa man mi di waxee nii sama waa kër maam am na ñoo xam ne waa kër seelu xadim lañ te aussi euh, moom ba muy dem si géej gi macha allah demul woon kenn ñëpp la demal jullit ñëpp la demaloon kon dañ koy ñaanal rek yàlla yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem waaw kon maanaam mënuñu wax ne ne murit ñoo am ndam waaye dañuy naan lislaam am na ndam ndax ñu bëri ñoo ngi doon seetlu ne màggal gu du am kon lislaam moo am ndam loolu l'islam mo am dam billahi wallahi l'islam rek mo am dam ndax kenn du cheikh khadim jambar la jambar la te li mu daj nii rek mom moo ko fay tay bis bi tay tay ji mom li mo fay tay ci bis bi ma sha allah nit ko xamanteni nit ku yalla baxal kenn mu wax ci mom ndax su fekkoon nañuy wax ci mom fi ba suba fi lañu fana ndax yalla la mu def dafa bari nañ kay nañ koy ñaan yalla rek yàlla yokk leeram tax ci barke yalla fay mu cheikh khadim ma sha allah liggéeyoon na yalla lo xamanteni kenn mënu koo toog fii di wax wax dëgg fa yàlla. kon soxna si ñoo ngi lay jaay bu baax si disponibilité bi. Ah, waaw waaw ah, yàlla na yàlla fay yiw ci barke Seexu Xadim bu baax la. ba te yen a ngi suivi li nga xam ne ne mooy màggal gi à travers télévision Kifne TV ba tawa ba ñëwaat rek di jàkkaarloo waat sama euh, soxna yi yaañ yi sañca ba jeeg soxna si noo def. ñooy fi. yaa si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. ngeen ñëwoon si màggal gi ak nan ngeen di li nga xam ne mooy màggal gi. ah ñu ngi koy dund mbégte bu neex macha allah ñun corona moom dund ñu ko sax daanaka mais respecté nañ li ñu wax yëpp macha allah mbégte bi daal ñu koy dund ñu koy alhamdulilah. ay ca kon gars yi bëggante nañ si li nga xam ne mooy sëñ Muntaxa joxe ordre mooy màggal gi noonu loo di wax sëñ bi ngeen koy ñaanal tamit sëñ Muntaxa. waaw ah, sëñ Muntaxa ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi ay ndigalam gis xaw ma sax xol moo seet rek sëñ Muntaxa daal yal na ko fi yàlla bàyyi fekkee ñuy ak chaque at ñuy ñëw di màggal ñu ko fi fekk. baax na rek def na def lu ko war allah. ah jërëjëf soxna si waa Kifne TV ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a Thank you. incense? Yeah. yéen a ngi nii di seetaan seen màggal gi nee naa li waa Kifne dañ indi li nga xam ne nag mooy programme mbégte bi ñu ñëwaat rek li nga xam ne ne mooy màggal gi soxna si ziar naa la bu baax delloo ziar wér yaa ngi ci jàmm ngi sant bu baax waaw waa Kifne TV ñoo fi ñëwoon ziar si leen xool leen ak nag ngeen dundee li nga xam ne ne mooy màggal gi waaw màggal gi comme ñu ko daan dundee rek di sant rek ak mbégte ci tool di ko yëg rek contentement mhm. di sant suñu bu baax a baax baax a baax sant bu baax alhamdulilah kon tey ji gars yi ñu bëri foogoon ne màggal gi di am waaye daanaka sëñ Muntaxa ku baax ki Mbàkke balla ñu koy ñaan yàlla mu yàgg fi lool ba mu joxewee donte gars yi sax fu euh, newuñu woon du am waaye moom lañ waxaan ndigalam ba ngeen déggee ndigalam ana lan ngeen yëg ci seen yaram lan geen yëg. waaw waaw comme ni ko ñëpp yëgee rek kontaan rek ndaxte Mbacke Ball boobu ñu koy ñaanal bu yàgg ci wér di sant Serigne Touba rek ñu ànd ak mbégte. ayca kon Serigne Touba mbégte la ba faaw ba ker ñuy faatu liggéey sax ci liggéey Serigne Touba bi jërëjëfati Serigne Touba. وما سال الله بيده ay lii rek lañ leen indiloon li nga xam ne mooy seen màggal Touba 2020 waa Kifne TV indi leen lépp loo xam na rek moo xew si màggal gi rek ñu daal di leen koy di leen ko bëggale ayca saa su ne rek nii lay fekk seen télévision Kifne TV chaque événement bu ñëw rek incha lépp programme bi lépp rek dinañ leen ko indee ba ngeen békk fi nga xam ne ne ñu njëtu woon ñëw di ngeen toog seen ko di ko suivre saa su rek ayca dinaan jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati دل ورا بدل